nee mi ngi leen di delloo ab nuyoo ba ànd ak ziyaar nee na day mel ne kàddu yi nu waroon a wax sëriñ bi jëloon kàddu gi yóbbaale na ko nee waral moy làmmiñ yi rekk ay yëkkati xol yi mom benn la nee na xanaa ginnaaw tuub tuubal sunu boroom ak sant ko di ko ñaan cyant ga mu yellol ci nun mu nangul ñuko mom mi nga xamne ne xam lepp man lepp sañ lepp mo non mana nangul cyant ga yell sunu ak mom نينا النعمة العظمى موي خديم المصطفى نينا <clears throat> لولو سونو خلاتي بوب منو كو داب Hmm. nee na lii nu sunu boroom defal ci sunu diggante xadimul Moustapha. nee na nga xam ne ab xam-xam yóbbuwunu ca jotalewunu ca. nee na ab man man jotalewuñu ca. ak njàmbaar it jotale wuñu ca neen rëy wërsëg it wallaahi ak cant la bàyyi nee na rëy wërsëg it jotale wuñu ca nee na kon xam na ne <clears throat> tawféex rek jum ñu tawféexal ci yërmandeem ak ngëneelam la nee na loolu xel lottu na ci dab dayo ba làmmiñ lottu na ci jottali cant ga nee waaye baaxam googu mënu baaxe ngir ku baax kim nu booleel yàlla na nangul cant ka ci yalla amin nee na borom ginnaw bu nu te sant nee mi ñi ngi ñaan defar gi mënu defar boole ñoo xadimul Mustafa te tawféexal ñu nu nangu ko gëm ko yaakaar ko doyloo ko wéetal ko sunu diggante ak sunu borom te lu nu ca def rek yées na cër ba mu yelloo ci ñun nee na li mu ñu dimbalee ci ak defaru neena ndaw nañ ko te sant ko bu baax te it mu gën ñu koo dolil nag ba mu dëppoog lanu war ci ak jàppeel ci sunu digganteeg xadimul mustafa nee na loolu sunu digganteeg ki nu boole ñun ñëpp la nee na waaye ñun ñi mu booleel nag ab cër ci moom muy cërub gëm cërub bëgg cërub dayloo cërub wéetal ko nee na ñun ñu ngi santante ci sunu biir nee na ginnaaw nag sunu borom subhaanahu wa nee na mbooloo mu nekk mën nañu leen a woo ci turu seen jëwrin nee na kon seen jëwrin ji ngeen àndal muy seen Gile Touré nee na kon lu ñu ko sant rek ñun ñëpp ñoo nga ca biir feeñu mom day mel ne xefam ak doxinam tarjuman la ci sunuy xol ñun ñep nee ni mu ande ak yende jitu len ci ngeen jooyal ci liggey bi nee man mën demb rek la fi joge andi ab liggéeyam te nimu ande àndeek yéen tey jii te ni mu àndeek yéen tey bu subaa it mu daal delu ci wat nee na day melni ne deug deug ni koy waxe di wax ne jox nañ la suñ bopp tey ak ëllëg nee na ko joxe sa bopp nag bàyyiwoo ci la sa bopp moom dara nee na moom nag day mel ne jooju tawféex moom am na ko nee na du aw ma niinam te du lu ko gënal Mm-hmm. mooy mu taxaw di kañ kenn ci kanamu mbooloo mi mm-hmm. nee na waaye nag wama shahidna illa bi ma alim naa waaw te nee na bu ndee wax nag nun mën a def lanu xam rek lañu lañ mën a wax nee na liggéey bi nga xam ne nag moom ngeen jiital ci seeni loxo nee na ni ko ki ngeen jox kàddu waxe rek nee na amul lenn lu fi egsi ñu di ko taataan nee na lu dikk dañ koy sotti rek nee na tey ji itte ji mu dajeel muy ittee daara mooy nattum njël yi nee na nattum njël yi nag bi ñu ko seetee yi ci gën a jàmp fii nu nekk kafe ci la Hmm. nee na moo tax saako su ndaw sii ngeen séen ci kaw defukaay bi nee na santiyom café bu mu doon seetlu la nee na day mel ne kafe yi ci dëkk bi fii nu toll benn gënu ko cee ràññeeku benn gënu ko cee jàppande yit nee na nag mu bëgg teg ko ci loxoom bu ko defee mu ànd ak jarbaatam bii mu doon seetloo kafe gi bu ko defee nag mu def ko kafe te yóbbu ko ca fa natt njëli daara ji waaw <laughs> ah, nee na sëñ gi la de ci nii rek la dëkk yaakaar na ni bi mu fi mujjee indi lu mat téeméeri si woy kafe gunu saaf booba yàggut nee na xëy na njël li la sunu boroom soob mu yóbbu ko foo xam ne neexuta matale nee na loolu rek a tax ñuy wut luñ ci dolli sen Gille kon bo jógee nga waxtaan ak jarbaatam bi sëñ yusu Jenn waaw nee na sëñ mi waajuram ci jëwrin yi gëna a ko ci yoon wi la bokk moy nar Jenn nee na waajuram wu jigéen nag nee na ñoo ñoo bokk waajur rek doomi sëriñ Fàllu la nee na waaye day mel ne loolu yi maamu wax loolu yi maamam wax ne maamam Cheikh Mahamadul Fadal نانا نبيعتو بنوتي بالإرادة دائما لمومي فوق رك لنك نانا خنتي وو في لن لطول أكتالي برك نانا لولو تخمطامو كتي ما عندك ينتي لغي بابو sëñ Gille biñ ne ñoo ngi séentu ab nawet daaw ba bañ duggee ca nawet ba ak biir nawet bi ak biñ ko génnee ba fii nu toll ñoo yem dong ci moom amu ci waxtu waxtu wu nekk rek mu ngi ci nee na day mel na xorondoom rek <laughs> nee na waxtu beccee rek ma ngay daw di wutiwaat. Hmm. Hmm. nee na waaye ñun ñëpp nag. Uh, nee na loolu mu wax ne sunu borom dafa wax ne mbooloo mi mën nañ leen a woo ci seen tuuru jëwrin nee na lii mu koy seereel. kenn ku nekk ci ñun ñi. jàpp na ne loolu rek a nekk ci sab xol. nee na ko ci taw fee xam eggu eggut ci nam ko mane it moom moom la man ma ngi koy jëf hmm. nee na kon cant yi ñun ñëpp ñoo ko bokk nee and ànd gi ngeen and ak mom ki yengup tol ya ki yengup jumaa ya ci yëngub jàngukaay ya nee and gi ngeen ci and ak mom dara du ci kumpam nee na kon na leen wóor ne cant gi ñun ñëpp ñoo ko bokk rek nee na mi ngi ñaan nag ginnaaw bu nu tuubee te sant yàlla na nu suñ borom maasale ak njëggal ñun ñépp te nangul ñu cant ga yelloog moom Yal na gëna so sooxat sunu ru ci liimaan ak l'islam ak l'ihsan so xatal nuko ci alquran ak xasaayid yi bu bu mbekkoor rabbi te tawfiq ji mu defal te aj ko ci ngëneelul boppam ak man-manu boppam rek yàlla na ko wéyal ci ñun ak lum nu àndal ci lum nu tànnal ci àndandoo ci ay njaboot ci ay wér ay wërsëg ay man-man sun lépp yàlla na ko sun borom jeexal ci ngërëmam te boole moom sàmm ba bu nu ruur dara bu nu dara ruur barke borom Touba amiin gën a bu baax a baax a baax te gën a tuubal suñu borom te di ko yalwaan ci kàttanam ak man-manam yàlla na ko soob mu yàggal fi jëmmam ji lool te lépp ànd ko wér te yàlla na sëñ Touba gërëm léppam fa ndam amee njariñ yàlla bu ko fa kenn ëppale moom nag ab liggéeyam da koo jëmee ci liggéeyub sëriñ bi muy sëriñ bi defar doomu aadama yi rekk ku fi indi woon ni nga xam ne sangam ba defar doomu adama yi ci seeni jikko moo ko fi indi woon sëriñ bi ci la mas di xëy di ci gont te yàlla wërsëgal na ko taw feexal ko yaakaar musta tase ci moom kenn musta ñëwit te amoo la nga bëgg du defere mukk nag bawal di ko yóbbu Saalum ndax daa xam ki muy defaral su defaree bawal rek bawal gam jóge woon la koy delloo na ko demal ñu xool ba xam su defaree Saalum it Saalum la koy delloo waaye ku ci mës a xëyee sa kër baay ba nga ñëwee ci moom ba noppi ci yow ba nga demee xëyat xëjatoo ci sa dëkkab baay bay xëj ci kër ga danga beru beneen dëkk sanc ko sa dëkku baay tas fekk sa dëkk boobee loolu nag yàlla mosu koo jox benn jaamam bu dul sëriñ bi sëriñ bii nag Ningin ngeen dajee nii li ma wóor na mooy bokk na ci lim lim gën a sant yàlla mooy ba ngeen fi toogee ba tey neewuñ kenn wàññi leen coow li loolu ab yar moo koy def ci doomu aadama te wóor na ko ne yar bi ca daara ya ngeen ko defee ba soog a ñëw ci moom te loolu mi ngi tegtaloo ci jëwriñ ji leen yàlla booleel ndax kenn ku ne sa jëwriñ rek ngay sëriñ bi mag ñam kenn mooy da leen nàmpal ci ay jikkoom ba bu ñu génnee moom rek la ñuy doon kenn ku ci nekk nag kala yar jikko jooju rek nga yor moom mii nag daa mat a ñaanal yàlla ndax fii mu toog ak lii ngeen di teg ci loxoom moom day ba mu cay tollu dëgg te gis ay kilifaam musta am yaari dàll musta am ñaari mbubb musta am mukk dépense bu añ teg ci boobu reer te booba mën na ko am ni ko ñëpp mën a ame waaye daa xam ne ay wutukaay a ngi nii ca diir bu gàtt duutu leen gis mu fas yéene bala bala bala leen noppee gis lam doon bëgg ci ñoom lépp mu am ko ñooñee nag la dan dann di wut ci ñoom seen ngërëm muy yaari way juróom yi ko seq di sëriñ Abdou Lahad ma dib sëriñam ak sëriñ Saaliwu sa bay lekk mu sa jënd oto mu musta jënd mbubb musta tabax kër genn kër gam amoon képp lañ ko xamee te lu nit di tumuranke rek tumuranke ne ko ci dëkk bii nga xam ne borom dëkk bi tumuranke ne ko fi way juróom bu baax way tumuranke ne ko fi te booba àdduna wan na ko kanam mu wan ko ginnaaw xam ne àdduna gii du dara lii mu koy xoy ci jambour rek la ko jël ci dañ ko jëlee ci woon mo xamné kon li fi andi moy jaamu yàlla ak liggéeyal liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam jaare ko ci buntum ci Serigne Touba mu fop dandum gep nak jéxal ko ci jaamu yàlla ba kera bamuy tok fi aljuma ajjuma bam ñëwé ci jotaay bi de ku ne xamné ne fi mu tok ragalu fi xamna na fi mu jëmit liñ ko bayé it apprenti wu na ko jàng ko ba mokal ko motax bam ci togué lacc wu ci kèn dara musta taalal la loxoom kenn du bor du ba dola nala jox ma ngir ma def dara liko fi Serigne saliw bayiwone ba muy dem bu dee fukki junniy nit yóbbu na ko ci ñaar fukki junni nit mbooloo moo defaroo ci ay loxoom te ku ci noppi rek mu delawaat la ci say bokk di la taxawul ci lépp nag daara joo xam ne sag lekk sag naan sag col sa wér yaram sa lépp sëriñ bee koy saytu ba noppi génn la ci ak réer la ci ak leer jariñ la ci àdduna ba nga mën a jariñoo jariñ say bokk mu noppi ñaanal la nga delluwaat say bokk foo ko doon wër fi àdduna fu dut ko fi fekk loolee nag doxin woowee nag la gis ne saa yu gestoo kum ca séen jàpp na ne yaay mbokkam doxeen mm. woowee mm. sëriñ bi amut doom amutum xarit mm. amul dara comme bokkal pas-pas jëm ci sëñ Tuubaa rek la am su gestoo waar woowee nag comme ci seen kum mën a doon rek jàpp na ne yaay doomam ji ku gën a jege jàpp na ne yaay mbokkam mi ku gën jege jàpp na yaay xaritam bi ku gën a jege yéen ñii nag yàlla da leen taw feexal ngeen bokk ci ñooñee ndax sëñ jiili mii muy wax lépp lu muy def dama koy woo su ma sëriñ bi joxee ndigal rek ci bu nu war a jàllale su ma ko wooyee daf may wax ne ma sëñ Fallou sama ñaari bët yi sëriñ Cheikh rek lay xool xoolut keneen sama ndijoor bii ci moom képp la jëm sama bëgg gi moom képp la lépp lu mu la wax bul defee na jegee na nuy ñëw rek ndax man looloo may dolli saa yow ma déggee rek su ma la wooyee rek soo ma nee sëñ Cheikh ne damaa dolli ko moo tax waxtu wu ne damay sawar ci di la woo kon kooku li sëriñ bi wax ci ab taalibe ci ak bëgg fekk na ko ci moom ndax bokk na ci sarti murit nag bëgg sab sëriñ boo ko bëggee ba noppi nag nga nangu koo liggéeyal tey joxe addiya tey moytu nag lépp loo xam ne naqari na yàlla sëriñ bi kat wenn waar wii la am mooy dox jëm ci yàlla rek lépp loo xam ne nur na lu lënt doo ci seen sëriñ Cheikh moom day weex tàll rek ba noppi jub xoj jëm ci boromam subhaanahu wa taala mu jóg ànd ak yow ànd ak yow ca loolee. jamono lëj na lool waaye nii day bu ngeen ko defee lu jamono lëj lëj yéen dana leen fi bàyyi ndax kat nit ku ne njiit rek lay bëgg te lii mu wax seereel ko sëñ Jili wax ne sëriñ bi te yàlla dogal loolee yóbbi sëñ Mourtala xaal ci mooy dayob cant ci sëriñ bi lottu nañ ci. te lin yàlla sëriñ bi li ne ci moom ci ay xiwal liggéey luñ yàlla lu ñu toll ba mu jox ñu ko wërsëg mayewu ko daraja mayewu ko doole mayewu ko gàmm daf ko woote kilifa gu baax def lu daj ca gàmm ga lu ne ba ñëw ci sëriñ bi ne ko biig de lu ne def naa ko ci gàmm gi sëriñ bi na ko loo ci jublu mu ne ko santale ko mu ne ko yàq nga ko ndax la nga am ba di ma ko sante maa la ko jox mu ne ko mbàkke kon lu la ciy dimbale mu ne ko ngéen yëg na rek mën a sëñ bi das koy yëg moo tax nag sëñ bi ne dañ koy gëm wóolu ko yaakaar ko doyloo ko te di ko liggéeyal baat yooyu baa baamu na ko ay yoon ñun sëriñ bi dañ koy gëm gëm gu wér wóolu ko wóolu gu wér doyloo ko mën a bëgg ko te ko liggéeyal moom mii nag foofu rek la teg tànkam kon nag liñ war a mën a maase ñaane ku liggéeyal sëriñ bi ba yaakaar na liggéey booba nangu na bala nga caa yëg dara rek jox ko sëriñ bi addiye muy aw fanam wu fi dolli ko nañ ko ñaanal yàlla guddal aw fanam te dolli ak wéram mu doon sagub sëriñ saaliwu di sagub lislaam dundu at yoo xam ne kiimaan la ci sunu borom subhanahu wa taala te lépp ànd ak xel mu sell mu dara si gut ak wér-gu-yaram ci barkeb sëriñ Tuubaa barkeb Cheikh Saaliwu ñu def ko muy suñ fedd léeg laxasaay yaakaar naa ne nag sëriñ bi day wan na leen nee na leen di fii de ab jàllalukaay la waaye doo ab taatanukaay lu tege ci loxo bi rek jàll ba mu agsee rek mu xam fa ngeen ko jëmee du alalam tegaat na ko seen loxo ne dem leen jënd ko yóbbu ko ca daara yi tax ngeen jóg ko daara yi jàppewu leen ay dongo yi daara ay doomi daara la leen jàppe day seet kafe ga gën ci kafe yi leen jëndal café gu am gu am gu am ay xeer leen jëndal café gu yomb day seet café ga gën ci café yi mu jënd ko yët dongo yi ndax jàpp na ne ñooy nit ñi gën ci nit ñi ndax ko jëm ci yàlla kenn gënatu ko bu leen di xottil day seet mbubb ya gën ci mbubb yi mu jëndal leen ko ndax ku jóg jëm ci yàlla kooku la gën ci àdduna moo ko moom moo tax àddunaam sépp mooy lépp lu gën ci àdduna rek suñ ko tegee sama loxo bi dinaa ko yët dongoy Serigne Touba yi nga xamante ni ñoo jóg jëm ci yàlla mu ne nangu ñaan لمن نباني بما الباق مسنون يا رب سلب بخافي من بلا هداد على بشير النار نبيك المصطفى مثالي لما أرم وكن بكل